allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñi àndal ci wollum xarala gi mooy suñu mbokk Jaawo Jallo mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon keroog buñ doon taxaw ci waxtaan bu mujj bañ doon waxtaane ñu ngi yemoon ak yéen lenn ci ngéneel ki ana lañ lañ war a delloo yàlla njukkal waaye taxawaayu arafa ci fukki fan yu njëkk yi ngineel ba fa nekk waaye yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi ndegem sa at matewu waaye ndegem tamit say fan matewu ko waaye ngeneel bala yàlla may nga bokk ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ba tax na jëf ju ndaw yàlla suñu boroom tabaraka wa fay la ci peyor boo xamante ne nit dund na junniy at amul peyor bi ni mel ko yóbbee da nga jël sa tànk teg ko fa la yonent bi xàllil ne nang fi aw nang fi jaar waaye li ko yóbbee mooy danga tënk sa bopp ci ndigle yàlla yàlla sant waaye nga di ko defee comme na ko yonent bi jàngalee alayhi afdalu salaatu wa aska taslim ba tax na tey ji bi iznillahi subhaanahu wa taala ñu war a toftal bunt bu jiitu beneen bunt bu bees mu aju ci ngeneelu tuddu borombi bi subhaanahu wa ci ayyaamu tashriq mooy bis ya ñu joxe iidul adhal mubaarak ak fan yu ci tegu fan yu ci tegu mooy ayaamu tashrik mooy bisu lekk ak naan ak tudd yàlla ndax loolu la yonent wax mu ne ayaamu tashriq da di yowmul akli wa shurbi wa zikirullah bés la bés boo xamante ne kenn du ci woor bés la bés boo xamante dafa war a fees dell ak tudd yàlla tudd yàlla bi mel ni dañuy faral di bàkk yàlla naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله moo ne tudd yàlla bi yàlla buur bi tabaraka day seedaloo malaaka yi ne leen xool leen sama jaami ñu ngi ni di ma tudd xool leen sama jaami ñu ngi ni di ma bakk xool leen sama jaami ñu ngi ni di ma xañ ñu may tagg di ma tudd di ma bakk te moo ne yéen a waxoon ne atajalu fiiha man yufsidu fiiha wa yufsiqu dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak moo ne woon keroog bi ma leen ne woon dinaa wàccee aadam ci kaw suuf da ne woon yéen malaaka yi da ngeen da ngeen ma ne woon moo yàlla danga fay wàccee ka fay yàq moo ne yàlla dangay wàccee ci kaw suuf ki fay tuur deret tey moone ne boo ñu fa wàccee dinañ la tudd di la màggal di la bàkk di la xañ yàlla ne keroog malaakay yi mi ma wax wax bi woon keroog ba ma leen ne woon dinaa wàccee aadama la ngeen ma wax de ñii ñu ngi nii ñu ngi def la mel ni la ngeen naroon na def bu dee yéen laa wàccee ci kaw suuf la ngeen di def di ma tudd di ma bàkk di ma màggal ñii tamit loolu lañu nekkee waxtu wi kon nañ leen géem góor góorgóorlu bu ñu am complexe di wax wax bi ndax tudd yàlla ci bés bi ci ayamu tashriq ñàkk complexe bu fekkee ne moo la koy taxa bañ a def kon xamoo bés bi lu mu lamboo di tudd yàlla naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar yàlla fi gën a màgg yàlla màgg na yàlla màgg na nga teg si ne laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg laa maabudu bi xaqin xayru amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul nga teg si ne allahu akbar yàlla màgg na allahu akbar yàlla màgg na walillahi lhamd nga ne mboolem xeetu cant yu kawe yi yàlla dong la ñeel nga teg si ne allahu akbaru kabira yàlla màgg na màggaay goo xamante ne kenn mënu koo takk kenn mënu koo xayma màggaayam ëpp na nga teg si ne walhamdulillahi kasira yàlla mboolem xeetu canta yu mag yi mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu matale yi yàlla dong la ak nu mu bëri doomu aadama yi lu ñuy sant yàlla yàlla dong la ñeyal mboolem xeetu kuréelu malaaka yey santu yàlla yàlla dong la ñeyal mboolem xeetu njanaw yey sant yàlla yàlla donga la ñeel mboolem xeetu mala yeeg garab yeeg mbindaafoon ya ñu xamul nañuy sante yàlla yàlla donga médité cant bi moo tax nga naan walhamdulillahi kathira mboolem xeetu cant yu bëri xeetu cant yu bëri yu limu yi yàlla dongoo ko moom moom dong la ñeel nga teg si ne wa subhaanallahi bukratan wa asila nga ne set ak callaange ñeel na yàlla bépp bés bu jant fenk ak bépp bés bu bi di sox ndegem yow mi wax lii dangaa gane si àddina fekk jant yàlla yi di fenk kon laata ngay génn ci àddina jëntaa ngi fenk bëtaa ngi set laata ngay génn ci àddina jant baa ngi sox nga ne bés bu jant sowee mboolem xeetu cant mboolem xeetu cellaange ñeel na yàlla ak mboolem bés bu jant bi di so mboolem xeetu cellaange ñeel na yàlla moo tax nga di wax ne wa subhaanallahi bukratan wa asila allahu akbar cettak cellaange ñal na yàlla bés bu yàlla fenkeloo jant bi cettak cellaange ñal na yàlla mboolem bési àddina yoo xamante ne jant bi dana ci sox yooyu yëpp cettak cellaange ñal na kon nga déggee amul benn bés fenk bu nit war a mën a bokkaale yàlla ak dara ndegem dang ne bési àddina bés bu yàlla fenkloo jant bi bés boobu ci tak càllaange ñal yàlla raxul dara moom yàlla ngane ne mboolem bés ba jant soo yàlla raxul dara ca lañ koy bokkaale kon amul benn bés bu yàlla di fenkloo jant bi lu dul bés boobu day nangu ne yàlla mooy yàlla mi fi nekk amul dara la karax amul dara lañ koy bokkaale amul dara lañ koy dendale moo tax nga ne wa subhaanallahi bukratan wa asila nga daal di répété baat bi waat ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar yàlla màgg na buur màgg na yàlla màgg na màggaayam amul dayo nga teg si ne allahu akbaru kabira yàlla màgg na màggaay boo xamante ne kenn mënu koo amal dayo kenn mënu koo amal ab nga teg si ne walhamdulillahi kathira yàlla suñu borom tabaraka wa taala mboolem xeetu cant yu matale ak lépp lu koy sant ci anam bam koy defe mboolem xëyti mbindaafoon yu limu yi yu takku yi sant yàlla moom dong moo ko moom yàlla tabaraka wa nga teg si ne wa subhaanallahi bukratan wa asila ci teg ca lange ñeel na yàlla mboolem bés bu yàlla fenkloo jant bi ak mboolem bés ba jant bi di so keroog yàlla suñu boroom dañ na ci lépp la nit ñi di ko bokkaale jalla wa ala subhaanallahi amma yushrikun kon mbokk yi bu dee yonent bi def ne bés ni ki tey bésu lekk la bésu naan la bésu tudd yàlla la bésu ziyaare mbokk la bésu taxawee ki nga tànne la ci lépp nag waaye bésu solu la bisu ziyaare boroom xam-xam la mu wax la événement ba waral tey ji ñuy reeni xar di jëfandikoo ndawal mu doon bés bi nga xamante ne baal xeju fi mu doon bés bi nga xamante ne lekk ak naan bala yàlla xéewalal waroo koo jël di ko moyee yàlla waroo jël xéewal yàlla yàlla xéewalal nga di si def maasiyatullah xanaa xamuloo sa jumtuwaay ya nekk ci sa yaram borom bi tabaraka wa taala mi la ko jox may na la fa jumtuwaay bu tudd làmmiñ woyofal na fa kàddu yoo xamante ni bés ni tey boo nekkee di tudd yàlla ci sa jumtuwaay boobu di sa lammiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee résultat bi keroog bés ci ngay xam ndekete tudd yàlla amul dara dara dara li ko ëpp solo kon bu dee yonent bi daf ne la bisu tabaski ak ëllëg sa di ayaamu tashriq yowmul akli wa shurbi wa dikrullah mais ñu nopp ci émission waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ñu ànd ak yow daldi njëriñu lañu yenentu bi baaxe ne suñu làmmeñ loolu la war a tudd bés ni tey wax na nañ leen ne takbiraat yi loolu ñu doon yëkkati léegi di xeetu takbiraat loolu la yàlla wax walu tukabbiru llaha ala ma hadaakum ngir ngeen màggal yàlla ci sens bam leen may ngeen doon julit kon war ngeen delloo yàlla njukkal di ko màggal ci baat yi nga xamante ne mooy allahu akbar allahu akbar allahu allah akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal kalimataani xafiifataani ala lisaan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu baaxee ci xadis bi mu ne ñoom seen jumtuwaay ba nekk ci seen jëmm ji yàlla baaxee leen ko te mu doon seen làmmiñ waaye waaye bés ni ki nañ leen su tudd yàlla waay nañ leen jël suñu cër noot ko mu bañ ñëw dëri yóbbu ñu ci lépp luy tax ñu mooy yàlla bés bi du bésu moy yàlla sama jigéen sama petite sœur sama frère bés bi du bésu baali bés bi du bésu fo moo ab jëmm lañu war a tëral dawal paak ci putam waaye yàlla daldi ko soppi mu def ko mu doon xar bi nga xamante ne moom lañ doon jëfandikoo moom lañu jëfandikoo démb moom lañu jëfandikoo tey moom lañuy jëfandikoo suba kon xoolal bu dee xale bu góor boobu di Ismaayil alayhi salaam moom lañu war a dawalal paaka bi ci baatam ba xam tey yow dinga mën a am temps dinga am jot est-ce que di nga sentir baal ba ngay organiser tontu bi mooy déedéet waaye amaana ñàkk kaa xam ak bañ kaa déglu moo yóbbe fa nga bugg a dem waaye nag kaay ñu jox la la gën baal woowu nga bugg a dem baali kaye ñu waxtaan ak yow la gën soirée boobu nga nar a dem fay sa xaalis xanaa xamoo sa xaalis boobu war naa war a mën a xëj lenn ci famille bi est-ce que sa xaalis boobu warul war a mën a jënd jën ngir ñu togg ko xaalis ba nga war a dem fay bii pour dem soirée wala pour dem baali xanaa xamuloo xaalis boobu war naa war a mën a participer ci facture courant ba góor gi di fay yow sama sœur yow sama frère xaalis ba nga war a jël dem déggee ko biye tike ngir dugg fecc ngir dugg baali xaalis boobu war naa war a mën a xëj lenn ci kër gi ci sa contribution waaye nga jël sa xaalis dem jëndee ko bàkkaar fàggul sa bopp bàkkaar nga am ci bàkkaar moo ne ana lu la wóor ne da nga génn ak bakkan ci soirée boobu ana li la wóor ne boo génnee ci soirée boobu di nga àgg ak bakkan sa kër loolu yëpp dafa jara bàyyi xel feet bi dañ ne feetu lekk ak naan la waay du feetu mooy yàlla ba tax na ñu di la baaxe la yonent bi ne sallallahu alayhi wa kalimataani ñaari baati yaa ngi nii xafiifataani dañoo woyof toll ala lisaan ci kaw lammeñ yi thaqiilataani mais dañoo diis gënn fil misaan keroog ci peesokaayu jëfu doomu aadama bés penc waaye nag xabibataani ñaari baat yooyu dañoo sopp lool ila rahmaan fa yàlla xabibataani dañoo am cofeel bu mag ila rahmaan fa yàlla maanaam yàlla daa sopp ñaari baat yooyu ñaari baat yooyu mooy lan yow mi ñuy teewlu ci réew mi fm 97.5 nañ leen bokk déglu ñaari baat yooyu woyof ci kaw lammiñ diis gënn ci peesekaayu jëfu doomu aadama keroog bés penc waaye ñu doon baat bu yàlla sopp lool fa moom ñaari baat yooyu noonu mooy subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim yonent bi nee na ñaari baati dañoo woyof toll ci kaw lammiñ waaye dañoo diis gënn ci peese jëfukaayu doomu aadama ci balance ba ñuy peese jëfu doomu aadama waaye ñaari baati yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam habibataani ila yàlla da leen sopp lool fa moom nga ne subhaanallahi wa bihamdihi nga ne cellaange ñeel na yàlla waaye mboolem xeetu cante yu matali ñeel na yàlla nga ne subhaanallahi alazim mboolem xeetu cant yu kawey mboolem xeetu cellaange yu kawey mboolem xeetu cellaange yu matali yàlla donga ñeel buur bu magg bi nga xamante ne màggaayam moo ëpp lépp waaw jaam bi fekk yaa ngi wax subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim yaa ngi wax ñaari baat yu oyof toll ci sa kaw làmmeñ wax ko du la dikkee benn problème doo fi nekk di xiixat doo fi nekk di nooy nooy bu métti doo fi nekk di sonn pour wax ko waaw subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim yonent bi nee na ñaari baat yooyof la toll ci kaw làmmiñ pour wax ko wax ñaari baat yi amul benn difficulté sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu ci tegal nañu thaqilataani fil mizaan dañoo dis gënn waaw ci peese jëfukaayu doomu aadama keroog bés pénc bu ñu jëlee subhaanallahi bi bihamdihi ak subhaanallahi al azim teg ko ci balance jil asamaan ak suuf teg ko ci beneen wetu balance ñaari baat yi dinañu daaneel asamaan ak suuf ba teg ci weneen côté balance bi kon xanaa baat bi mu diis baat bi nag bu dee dañ ne dafa diis si peesokaayu jëf doomu aadama du ñàkk ku mel ni man laajte waaw julli yi nag waaw koor yañ doon woor nag waaw génne azaka yañ doon def nag waaw njàngum alquran ba ñuy def nag waaw jëf ju baax ba nekk di jëf lu tax ñaari baat yi war a mën a daaneel suñu jëf ju baax yooyu tontu bi mooy mënoo tudd ñaari baat yu woyof yi ci sa làmmiñ nga baña def loolu ngay xalaat ne est-ce que yooyu nag kon nga déggee ci ne képp kuy tudd ñaari baat yi tudd ñaari baat xam la baat yi di tekki mooy tax ngay jàng alquraan mooy tax ngay julli mooy tax ngay génnee azak mooy tax ngay jëf-jëf ju baax c'est impossible ngay tuddu ñaari baat yi bañ a def yi ñu tudd nii amul kenn kuy sax di tuddu ñaari baat yi nga xam ñaari baat yi lañu firi lañu wundu nga ne doo julli déedéet loolu c'est impossible loolu mënul ne kenn mënul xam ñaari baat yi firi nga ne woor kenn mënul xam ñaari baat lañu tekki nga ne daw jëf-jëf ju baax déedéet au contraire tudd ñaari baat yi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim di ko tudd xam la baat yi di tekki xam la baat yi di firi moo lay tax doon loo julli moo lay doon loo kuy jàng alquran moo taxa doon kuy jëf-jëf ju baax nii nga mën a déggee ñaari baat yi seen diisaay ci kaw balance doy na rek ñu ne la xabibataani ila rahman yàlla ku sopp ñaari baat yi la ñaari baat buñ ne yàlla ku sopp ñaari baat yi rawatina gémmiñu jëmm bu muy bàllee na kooku foog ne noonu lay mel ak cofeelu yàlla ah day sopp jëmm jooju doo dee génne rek baat bi rekk la yàlla sopp naam baat bi la yonent bi joxoñ fi ne ñaari baat yi dañoo woyaf toll ci làmmiñ kon làmmiñ bi ci ku ne ci jëmm ji koy tudd waaw kay ndegem làmmiñ bii tuddu ñaari baat yi dafa am ci jëmm bu mu ne kon jëmm jooju bu dee moom moy tuddu ñaari baat yi ya yàlla sopp fa moom waaye jëmm jooju tamit day bokk ci soppe jëmm jooju day bokk ci soppi ndax jëmm jooju mooy tudd ñaari baat yi kon yàlla mënut bëgg ñaari baat yi te du sopp di bugg ki koy tudd loolu kenn waru koo mën a xalaat déedéet bu yàlla di soppu ñaari baat yi bu dee ñaari baat yi subhanallah alazim wa subhanallah bi hamdihi bu dee dañoo am palaas bu kawe fa yàlla kon da nga war a déggee ne jëmm ju koy tudd ci làmmiñam ji moom dina am palaas bi ni fa yàlla moo tax yonent bi ne kalimataan ñaari baat yaa ngi nii xafiifataani ala lisaan dañoo woyof toll ngir làmmeñ mën leen tudd waaye nag thaqilataani fil dañoo diis gënn waaw bu am doole lañu am ci balance ba ñuy peese jëfu doomu aadama keroog bés pénc waaye ila rahman baat yu yàlla soppala fa moom baat yooyu mooy wan baat mooy subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim ci tag ci laange yu matale ñeel nañu yàlla ak mbooleem xeetu cant yu matale ci tag ci laange na yàlla buur bu kawe ak mbooleem kawe yu matale nii la ñuy déggee ñaari baat yi doy na rek mbokk yi ñu ne ñaari baat yi day diisal balansu peesokaayu jëfu doomu aadama kon nang ci sax na doon sa singomu gémmiñ nga di ko tudd saa su ne waaye doy na tamit ñu ne xabibataani ila rahman borom bi tabaraka wa taala ku sopp ñaari baat yi la lépp lañ ne borom bi lu mu yow jullit bi danga ci war a xar sa tànk tubéy takk sa ndigg nekk ci bi nga dajek ngir mànde yàlla waaye ki la ko wax nee na bul ne munuma kaa tudd dafa diis wala dafa compliqué mais daf ne la xafifataani ala lisaan ñaari baat yi dañoo woyof toll ci làmmiñ ñi waaye nañ leen toog seetaan nañ leen xalaat ana yan commentaire yu difficile yañu mémoriser ana yan xeetu yu difficile yan xeetu wax yu jafe lañu mémoriser suñu baat suñu bopp ana yan kàddu yu difficile lañu mémoriser suñu biir mémoire ana yan kàddu yu jafe prononcé lañu mémoriser suñu biir mémoire moo lii amul dara la fa nekk lu difficile subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al azim ñu ne la ñaari baat yi dañoo woyof toll ci làmmiñ dañoo diis gënn ci peesukaayu jëfu doomu aadama kerok bis pénc waaye yàlla buur bi dafa sopp ñaari baat yi looy xaar pour mokkal ñaari baat yi looy xaar pour mokkal ko kon yow mi préparé bés ne dangay dem baali jilal ñaari baat nga di ko répété sa kurus moo xam sa loxo loo munti yore jëlal ñaari baat yi nga di ko répété su ko defee saa yoo ko waxee ñu wàccel benn poids bu dis gënd ci sa peesekaayu jëf keroog bés pénc balance ba ñuy peese say jëf saa yow waxee subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al azim ñu wàccel la poids bu dis gënn ci sa balansu peesokaayu jëf keroog bés pënc ndax sa balance bi gën a diis lool ci jëf ju baax lii moo gën nga takk sa dàll defar sa xar kanam nga ne dangay dem fecci lii moo gën nga takk sa ceinture fomp sa dàll nga ne dangay ngay dem baali kon yow sama sœur yow sama frère jëlal lii ñaari baat yi nga toog sa ruq ngay tudd yàlla ci turam bi na keroog ëllëg bés pénc sa balansu peesukaay jëfu doomu aadama mu daal di diis génn su ko defee lii la la réew mi fm 97 jox kom ndéwénal ñu di ñaan yàlla suñu boroom an yataqabbala minna wa minkum saaliha amalana allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd baarakallahu lii walakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim allahumma aminna fi awtanina waslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu